ne fi muy tambalé waxam ne moy gannaaw nuyo sant yàlla julli ci yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mi ngi nuyu serignam bi tok di alxaaji malik di sëtu Cheikh Seydi Hadji Malick ne mu mel na nag moom ne lu muy bëgg ca yàlla ne bu jaarul ci Cheikh Seydi Hadji Malick mën naa am du ko am yàlla nu digaloon ni ku ci jóg wut si ma wutal ci ko jaar ci moom mu ànd ak yow ba ci man ne moom nag tànnul fi mu bokk waaye yàlla ko ko tànnal ñam fa fekkit di ay kilifaam di ay wéeru waayam ne moo tax mu doore nuyoo bi ci moom ak ziyaaraam ak ndokkeelam mu jëm nag ci njaboot gi yépp ne bu du woon aada dafay wax ni wax ji jeex na kenn amatul loo wax waaye nag aadaa ko waral nag fekke it nag muccul tabaarakallaahu moom ñu di ko nuyu di nuyu sunu mbokk mi toog di aali nguy njaay def fi moom discours bii mu fi def muy discours bu magistral fa tabaarakallaahu lii Papa Malick wax mënoon nañ ko fee téye moom mu àggale guddi gi loolu mënoon naa am waaye ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu di nuyu nag mbooleem ku fi toog rawatina moom ak ñi mu àndal

di nag sunu mbokk yii nga xam ni lu fi xew lu fi xew ñu dugal ca ñoom seen loxo boole ca nag seen bopp fu nu yëkkatee yiw xalaat kër gi muy sunu mbokk yi jóge ba Maroc ne xam nga ñii fi toog tey bu fekkee ni délégation bi la délégation marocaine bi mooy mooy safir bi moom moo fi toogal Maroc moo leen di guider bu fekkee na corps diplomate bi la mooy seen doyen kon moom ñu jëkk koo nuyu muy mbokk yàgg nag ci réew mi di nit ku baax matale nag lépp di taalib baraada ñu di ko nuyu bu baax a baax ak mbokk yi mu toogal ñoom ñépp sunu mbokk yi jóge Liban jóge Koweït jóge Palestine fu nekk ci réewu arab yi ñu ñëw représenté si loolu bu ko defee nag ñu nuyu itam ki nga xam ni moo jiite délégation bi jóge Maroc ñëw fii muy Seydi Abdoulatif Al yi di mbokk moom di wëllëre sawar nag lool ci lu baax ànd ak ku ñuy wax ustaas raamu xamu moom ak ñi ñu àndal ñuy yóbbante nuyoo nag ci ustaas abdul karim haani ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati wéral ko di nuyu itam le conseiller Djeylani di ko nuyu di nuyu Rachid journaliste bi ñu àndal bàyyiwunu moom daal kenn ci nuyoo bi di nuyu nag mbokk yi fi teew yépp Mouhamad Barout si Malick loolu la bëgg moom loolu am it di nuyu mbokkam mi mu àndal te duñu tàqalikoo mukk muy Abdullahi Saad Abdu Abdullahi Saad nuyu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di sëtu Cheikh na Ahmed Tijani ñëw moom fekke jataay bii daanaka moom moo ko barkeel di nuyu sëriñ Baara Abdul Ahad di ko yóbbante nag nuyoo ca sëriñ Muntaka yónnee nuyoo ci sëriñ Bachir yónnee nuyoo ci këru diine yépp di sant nag ñépp nag ne cant rekk moo tax muy wax waaye wax ji mat na ba noppi am nag loo xam ne lii xew na fi bu fi xewee nag ci ñaari parti la xewe benn bi sunu mbokk aali nguy toogal fi état bi dafa wax ba tudd Tiwaawan tudd it nag hôpital bi nee mu di ko wax nag ni ko hôpital bi tabax la paasewul tabax amul docteur amul garab ne ñu di la ñaan ñu dimbali ñu ci loolu ndax ministre de la santé li ko war yépp mënu ko fokk ngeen geestu ñu ci hôpital nag buñ koy tudd dafay ami malade ñu entré téléphone mu am ay docteur yu qualifié amu fi garab gu ñu leen di jox amu fi léegi yenn nit ñi ñoo ñuy may matériel yu ñu xor-xoral ci hôpital bi nee mu yóbbante la loolu mu gàtt ne boo demee nga yóbbuwaale loolu nee déglu leen tuuti nee na waxu ko pour loolu de waxu ko pour ñu tàccu de nee boo amee soxla gis koo yaakaar ni soxla boobee mën na ci dara car war a wax ak moom waxal ak moom loolu rek la nag ne keroog bi ñu mayee fii ay garab sunu ay doom jële ko États-Unis indi ko lu ko jiitu Ahmed Amar mii fi jóge moo ñëw fii may une ambulance médicalisée may ñu millions de francs may ñu ay tonu denrée yee ñuy defar faire... NMA indi ko pour hôpitalu Tivaouane bi ne fekk na un hôpital bi un woon ay bor ca loolu moo tax muy wax ñaareel bi bidon boobu jógee États-Unis ñëw am na mbokk mu baax ku yàgg a def lu baax ci Tiwaawan ñu koy wax Baaba Jaw ñu bare xam nañ ko mu yónnee fi maye fi ambulance moom itam ci fan yii ñuy waaj a gàmm rek ne mu wax nag ministre ba ni ko comme ñoom luñ fi def yow lañ ko defal ñëwal fekk jëf ji mu ñëw fekke ko lii ñu la wax wax nañ ko ko bokkoon na ca lañ ko ñaan kii nga xam ni moo amee hôpital bi di ko farlu nag yàlla natt ko mu am accident ñu wax Diouf Sarr ni ko dimbale leen ko may ko benn oto wala hôpital bi wala ngeen may hôpital bi oto benn benn bañ a wala ben oto bu kenn nutul, bu laajee oto ba rattrapé ñu rattrapé ko jox ko ko mu ciy dox ay kuy tawat da ngay tawat fa metti ñu waxit ni yokk leen subvention wu hôpital bi yi yombul waaye ku war a yenu nag foog nga yenu ñu teg ci ni sëy yi nga xam ni ñooy am ci Sénégal ni sëy yooyu di doxe moo tax doom ju barkeel juddootu ci ñi mujj a juddu ci jamono ñépp ay fecckat lañu déglu leen tuuti te nee fecc nag ku la dàq fecc moo la gën a ñàkk kersa ñi mën a fecc ñépp amatuñu kersa dëgër bët ñàkk fulla beneen bi ci topp mooy mën nañ koo jàmbat waaye responsable bi nag dëgg-dëgg mooy état bi mooy affaire góor jigéen nit ñi ni duñ ko suul di ko sànni xeer nag ba mu dee foofu moom mii ñoo janoo booba fii ci gël tàppe ñu koy sànni doj ba bët yi génn nit ñépp fa la yendu góor jigéen nag sàkk délégation ñëw ni jox ñu ñu yóbbu ko Faatiya ak Saar yomb na ñu jullee ko yóbbu ko loolu góor jigéen yee ko def wa tabaarakallahu léegi nag léegi kenn waxatul waxu jigéen kenn damatul sa loxo kenn fantatul waaye góor jigéen itam ni ñu toll ci réew mi kenn xamul nañ toll danañ ko dendale nag ak ay farmason hmm. waaye état bi ci boppam li ñuy wax impunité moo waral bon yu bon yu bare di am te kenn waxu ci dara kon ba tey ministre de l'intérieur lii xew ci biir réew mi ci loxoom lañ ko teg góor jigéen yaa ngoog wax ci déggu leen tuuti ne lii ñu wax ci sa kaw la dal yow yaay ministre de l'intérieur loo ci def rek ñëpp jàppale la nga wax ci mu dañ ne amma lii Papa Makhtar wax nag ci sëy yi ne sëy yi yées na loolu nee li ñu xewal jabaru taara ñeenti jabar nga teg ca ñeent ni ay taara lanu taara amul taara jaam ci diine bi muy am diine wax na ñan la alladina yasudduuna an sabilillah booba la jaam am waaye léegi jaam amatul ñu indi taara ñeenti jigéen takku mu taa am na baaxut ku tukki ku ne foo fanaan takk fa jabar boo xëyee suba jéggal ko nee moom mii ànd na ak nit ci benn jamono ñu dem Maroc ba ñu demee daf ko laaj yow ban otel nga dal ma wax ko ko mun ma yóbbuwaaleel ma sama bagage gardeel ma ma yóbbu bagage ba ba ca ëllëg sa gisu ko ma ne ko man nag xawoon naa jaaxle mënumaa dem mënuma dikk bagage baa nga ma garde mënuma waaw xam nga boo wàccee ci dëkk tumuranke dem rek ñu baaxe la may la soxna yow sax wutal naa la fa benn ma ne ko def nga ay déglu leen tuuti déglu leen déglu leen ne li muy wax nii nee na li muy wax nii reelu na de waaye lu bon lu reelu la wallahi ni ma man sax wutal naa la benn ma ni ko waaw sëriñ bi man ñemewuma sax nooyi kee ma bàyyi ci Sénégal ñemewuma ko kon du ma wut keneen loolu waxatuñu ko léegi waaye daal li siiw mooy takku suuf takk suuf circuit fermé la moo di déggu tuuti am na groupe goo xam ni seen jagle moo di jigéen ju bëgg sëy ak góor te bëggul mu fës ñu maye ko bu la ko mayee nag am na nooy mel altine ngay moome ak alxames ak guddi xaaju guddi jënd jàlla bu weex kurus gu weex mbaxana mu weex bayatu ment la ton moom ngay diwoo boo dee moome ji reeri ci xaaju guddi boo ñëwee ni sunu daayira dafa am dog yi ñuy def <laughs> baxul baxul déglu leen tuuti ne ñu dem ci nak ba nga xamni legi gor góor guddee góor guddee am dara fukki jigen ak jurom dana ñu ñew muru ni sama jëkkër won ñu sédd leen ci nonala ñu dem seen yoon nde lii papa Makhtar wax rek waaw yow sa kër dee nga muuru nit ñëw ni xaju fi mu kuy muuru danga amul ku la jël mu nga daldi mu réeku allahu akbar ak li ñuy wax baara yëgoog yii yëpp ay bon bon la yoo xam ni mi ngi ci réew mi ñu ko doyadal waaye baaxul ci nun mooy sabab musiba ak bala wàcc ci sunu kaw ne danañ ko jooytu nag ndax dañoo jàngoon ni man raa minkum munkaram nanga ca wax nag waaye nag foo gisee nag foo ko jooyee ku fu mel na ko fii ñu ngi koy jooy di la wax ni lu fi taxaw ku fi taxaw di góor jigéen manifester ko wala mu nëbb ko ba feeñ dal ci kaw libérer population bi dindi mbon mbon yooyu ñu dindi ñu jublu ci mbon yooyu bàyyi ko ne ñu ngi leen koy ñaan ñu ngi leen koy ñaan gannaaw loolu nag ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli barke yàlla nañu yàlla aar réew mi yàlla na yàlla wëlbati xol yi ba ñépp bëggante yàlla na yàlla wëlbati xol yi ba ñépp soppante yërëmante di dimbalante ci ni ko yàlla bëggee wa taawanu ala albirri wa taqwa loolu la yàlla wax waaye waxul leneen nag la ca des daf ko tere ni buñ ko def ne bu ko defee léegi nag réew mi soxla na jàmm jàmm ngi fi nag ne ñu ñaan dollent te bañ a yàq li fi ne liberté bi ëpp na ne ni ko ministre bi waxe rek coow li bare na ñépp ngi wax waye kenn waxul lu bax kenn waxul dëgg kenn waxul it lu rafet ñi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla dimbali ba lolé ñu soppiku fa tabaarakallaahu jàmm nag moo ñu gën a yitteel boo amee daal lu bare mën naa defaru jàmm nag wax ko yomb na dox ko yomb na waaye jëf ko moo jafe ne sëñ Pam Malick wax na ko léegi nee na maamam Cheikh Seydi Hadji Malick nee na jëw ci làmmiñ mësuma ko def waxatuma laat ci sama xalaat loolu moo di maandu ci biir maandu ci biti ba ca la ngay xool maandu ci maandul ci la ngay xool waaye góoru tukulóor ba nag dañu ni xool jigéen benn yoon wàññiwul dara waaye bu ko xool di ko xoolaat تكلور بي غيس نانداو سرافيت نيكو جاك ديكو خول ديكو خول مروم نيكو يوني داينا سانك بليك يانكو خول تحرامنا من بين يون لاكو خول خفاكوما والسلام عليكم ورحمه الله